ndaw ñi vraiment merewul la ndax bi nga dikkee fii li nga ñëkk a xalaat mooy stade boo xam ne ndaw ñi dañ koy soxla di ci tàggatoo seen yaram nga defar ko ba mu jël ko jébbal ka ndaw ñi amul benn mag bu fa nekk ay jeunes dong nga ko yore te mosoo faa jaar li jënd woonu da ñoo bàyyi ñuy doxal comme ni ñu ko bëggee. koy xam ne ñoom am nañ avenir nga wutal leen ay xëy ñu signé waxuma la nag signature yu fala fala signature contrat nekkul lu yomb nga jël jeunes yi wutal leen ay xëy ñu mën a am lu ñuy jël di ko yóbbu seen ay waajur ngir ñu leen di teddal tàccu leen loolu fekk fa ay mag fekkoo fa ndaw na la leer na am nga loo dese mais yow wax dëgg yàlla fii ku fi ñëw danga nga fi gis mag di nga fi gis gone di nga fi gis maire di fi gis euh, ab jànq ñoom ñëpp nga dajale booloo leen yiir leen aar leen ngir lan luy jëmale seen commune kanam kon ñu lay sant di la gërëm di wax nag ñi ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum